daal di génne cent cinquante mille ni ma demal nga dem dara ba nga jënne xar nga bàyyi ma xar mi kooko tàcc yàlla nga gudd fa bu daan dem ndar te may yee deux heures du matin maam Ngoné laa ko toggal laax xam ngeen laaxu deux heures du matin toggal laax maa ngi ñëw ma ne ko galo yi ñëw ñu togg laax bi bala mu lekk laax bi doo ko dem la ku mën a meewa ngi yàlla ko may euh, <laughs> euh, na nga ko may lebe rek na nga ma lebal lu baax cheikh yow sa gàttaay bi bu doon jamonoy sëñ Fall ak sëñ Babacar si nga xam ne baatin bi dafa bari timis ñu takk leen yéen gis naa nag maa euh, sama collègue artiste yi sama rakk ñoom père bu xar ak Guèye Teranga ak euh, laay ñëpp daal maanaam ñëpp waaye da leen seet yàlla si di wax li di ñëw seet trop waaye man damay waxtaan rek non man non soxna si man mayew man damay wax waaye nañu seet yàlla si li ñuy wax merci dinaa teew nag ndax jëmm ji yàlla na ko fi yàlla bàyyi man rek laay wax may ko wér may ko wérle dama am sama benn copain benn grand bi ñuy wax grand Jean Jean dafa nekk si koñ bi léeg-léeg jéeg ju ko Jean mais waaye xam nga dafa xaw a dëtub nag ama ñañe wam nag benn bu neex léeg-léeg jéeg ju romb ko Jean dañu may pain pastel ama xaalis ama xaalis ama xaalis waaye Jean yow dañu may pain pastel xam nga koñ nag day am koo joxe rek tagal na ko agent ne doo may pay passer wagasu ne tas na ko Jean doo may pay passer Jean ko day chef kaani waa ji dafa ànd ak copain am ak jabaram ñu dem Sandaga jënd saaku ceeb bu ñu dee saaku ceeb jëkkëru ndaw si daal di tas saaku ceeb bi di ko teg jamonoy R4 ba mu naan cas SO ba mu ne cas saaku ceeb bi daal di dëgg mbott daf ko ne cas ak daan ñu ñëpp ne teg kenn waxul arrivé à la maison copain bi daan na ah man nag du ma si xelam non mënuma coppe comme coppe bi moo yeboon saaku ceeb bi xaaral man ma wàccee saaku ceeb bi ne tas saaku ceeb bi daan ne nee rek nga dégg soxna si naa ko saaku bi diis na de mu ne ko saaku bi kenn wul fii Sandaga la diisee bu la foto bi dafa romb maire bi jaay pompiteer ndax man pompiteer dafa am yu ñuy frité ak ak nga mel ne day mel ni doomu égar bi maire bi bu la fa dem rombé maire bi xam nga màggee ore wara lama eh lama maire yaay man nga da nga tarap eh dama tibal si commissaire gi nga yóbbaale ma may la ya ma dama yàq sa jaay rek ma ne eh, dama sonn kii fu ma sax dama bégal ma pour faire plaisir à la maman maire bi dafa set bi dafa set bu <laughs> mu ne bi daal di yem iya. si bii mel ni égal ak tàngaay bi mënutu ko sàq bi day jàpp bëñ mu wan naa suppu muy sentir tàngaayu pombiteer bi di wàcc mu xam ne caaxaan jeex na rek mu woo benn mbokk pour le bi Mamadou Bente Mamadou Bente bi na ko xondu mu simi tubéy na ko ndaaru pombiteer ari mu ne ala mu ne so alaani mi maaye hannde mu ñëw wala ma dem na riir yuuxu leen ma xool tey nag comme personnalité dañoo teew dama leen di jox bii rek xam naa ñàkkul ci ñoom parce que maa ngi fiy dégg ay ñoom grand jieeg jaayeyu classe googu dafa am grand sarcero boo xam ne laay fi yëpp na doose sañse rek buy usap dari day doose mooy grand station day doon naan aradamina si sabe sabe Camina la macha saba patiba. Ella se orienta para. Lépp ci incarnation di saw day taxaw naan aire la so se ba muy siita la ne tekk daan ne uh-huh. daan ne oui les c'est ça automatiquement beneen waaye ñëw commencé di saw tollu si car car mu ne ko ak moom de <laughs> waaye ya ma dàq meew foofu ki muy wàlliwu meew kat yàlla teral. yaa mën a meew. bu ma wàcc de na continué. yaa mën a meew. maa <laughs> ngi na continué. waaye gannaaw yaa mën a meew. waaw jërëjëf. joxal ma mu ne. joxal ma sama doom kër ga. oh. barki sëñ Babacar si joxal ma sama njaboot bi am na njaboot noo ko for noo ko bokk yàlla yàlla barkeel meew gat bu mag bi yàlla danga meew ba gàtt ah gan kon maa leen di jox bi nag après daa daw kontaan naa trop vraiment lu nga ko mën a gërëm ngeen gërëmee ko léegi comme nag Thiès moom su ma dëkk la waaw juddoo ma fi nekk waaye am naa fi lu fukk juddoo amul le 31 le décembre dafa am spécial Galo Thiello benn euh, place bu ñu ubbi le jardin bu nekk boolu euh, hôtel bu bees bi nekk fii sàmmkan waaw xam naa di ngeen dégg publicité spécial Galaw yi fii ne dama doon mosalaate rek waaw kon nag yal na yàlla barkeel yal na yàlla dolli sutura yàlla defal ñëpp jàmm xaaral nag booy bi dafay dox ba seeg tasanteeg benn naar di jooy jooy yu métti naar bi ne ko asalaamaaleykum ale wale lel Papa Naar jiit wallahi xale wolof mi ngi raw lan moo jiit Papa Naar jiit jiit jiit xale wolof may di wax waxal jiit moo daan ne jiit lan Papa Naar jiit ak jiit ak xar bu ëpp Papa Naar xar moo ko ëpp xale wolof yow da nga raw de léegi jiit ak ginaar bu ëpp ma ko naan ginaar bu ëpp wallahi la asr ma ka taxal dina laaj suma tar ngeen laaj jiit ak picc bu ëpp ma ko naan picc ma ko xale wa def indil ci man jiit ma simmi suma tubay ma toog si kaw jiit cinq minutes Papandaar man du ma xam nga ku doomi rey sa maam boo gisee lu ñuul daw Papandaar man du may ni jiit de kenn mu woon la jiit woo ma naar bi ñëw fekk jiit di ne dugg directement ko xale yi day déglu xale yi da ngay wut dër réew. wallaay de yow di nga réew trop ba xale wu def xoolal man dinaa simmi suma tubay ah ma toog 5 minutes ci kaw jiit te du ma yëngu simmi tubay di toog ci kaw jiit ji def fa 5 minutes 5 minutes rond kek la fa def. léegi nag bi mu fittee xale bi géem gi delluwul il faut mu mu chargé waat. pour amat juk di sole wala lii rek moo tax ngay jël jël bu bëtt xoolal lii rek moo jiit jiit jiit jiit dinaa la may yeneen cinq minutes toogaat cinq minutes quatre minutes soixante soixante dix ah! oh le temps muy rep muy te le temps muy le temps muy réagir pour jug dék génnu jiit gi répondre na oh na ko kon ay ne لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربنا اعتنا في الدنيا حسنه على لا اله الا الله سبحان ربك رب العزه لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما على الحداث الحداث لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم xale wu ne fit ab naar jiit yow toggul si jiit yow si pont la toog kon gars yi non mën naa leen yal na yàlla dafa jàmm je vous respecte beaucoup